na ngeen ko dégloo xel nag bu baax a baax te li ñuy wax mooy ci ñetti xaaj yi nekk ci biir te li may wax itam ci biir l'islam rek la ndax l'islam bi mu nekkee bi mu jógee ci loxoy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñëw ci nun ba naga li dañu noo bëgg a dugal ci yeneen diine yoo xam ne du noonu la saxaaba yi nekkee woon ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam indil na fi beneen façon diine boo xam ne ñu jéem noonu nax dugal na ci loolu naan nañu ko def muy diine ba jàpp na nit ñi xaaj leen ñetti xaaj benn xaaj bi xaaj bu ñuy nax la benn xaaj bi xaaj buy nax la benn xaaj bi xaaj bu ñu naxoon ba gis ne naxe la mu génn ci mu bugg nag keneen ñu bañ koon nax comme ni ñu ko naxe woon bu jëkk ñoon ñooy ñu muus li te ñi doon naxe nag bugguñu loolu ndax li ñu doon daw yëpp mooy seen intérêt personnel la dawuñu woon pour njëriñ doomi aadama yi dañ doon takku seen njëriñ kenn loolu ma tax ñu mer ci kii xam ne yeewu na mu ngi yeete dañoo bañ ñoom ñi naxaate bëgguñu loolu. non Pape Mayo dëppoo nañ si bu fekkee maa ngi baax si Sénégal ak si bi ñu nekk nii nii moom ñu ci la bokk dafa bu bu bu ñëw ñi jiitu woon si génération ñu ñu ñoom danañ ñu baax loolu dàq ko te même bu leen di roy si roykaay ba rek dañuy leen roy si li ñu mi ñu dafa nekk koo xam ne moom tijaan la woon mu génn si xëy dafa andi kitaabu bañ xawoon ko sax ba bëggoon ko sa rey jàmbaar suuf yi ñoom di leen di leen daaj suba ngoon mënuñu dara mënuñu ko laal mënuñu si ndax ñu bëri dañ ko dañ ko garder ñu dem ba xam tën tënal ñu boole ko Senghor Senghor refoulé ko avion lañ jël avion kese la jël ah, euh, refoulé ko ay bagages am kii moo nekkoon jàmbaar yooyu yëpp nga xamoon bañoon bidaa bañoon shirk waaw fiir ba ba bi kii mooy mag ñu mag ñu wax Sénégal kii moom. bu bokk ci premier tamit mu ngi si deux mille troisième man ñu ma ràññi Sénégal nga xam ne ñu ma gis man xamal man man maa judd man ñu ma gis kii li muy défendre islam bi défendre sunna bi du du du ñeneen ñi de ndax ñeneen sa si défendre dañuy défendre saa di défendre di défendre di défendre tamit kii Ahmed Tidiane mais xoolal moom mi day daaj seen lool di saxaw sunna. waaleykum salaam <coughs> euh, mbokk mi gis nga li nga ak mbokk mi lu lu ñu wax li da wax li du dañ dëgg la tey fii coow lu bari rek moo fi am di tànqal nit ñi rek mag ju baax mag ñu baax wallahi am na ñu bari ñu tuddee mag ñu baax du ma ne ñëpp demee am ñu tuddee mag ñu baax jógewu ñu baax sax xeeñcuwuñu sax lu baax bal sax ñu bon luñ parce que mbon rawatul mbon rawul nit taxaw di woote yonent ginnaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na fii Sénégal te bu ñu lim fii ñu ñu mag ñu baax dinañ koy lim yonent bi sallallahu alayhi waxoon na dana am ñu ñëw si ginnaawam di watab yonent senegal mooy le seul pays au monde ay particularités yi nga xam ne benn dëkk amu ko ci réer dëkk boo dem ci àdduna bi dëkk yu bare am nañu fa woote mais Sénégal moo kaa bu nga xam ne amul benn réew ci ci àdduna bi Euh, xanaa ku muy xaw nurul tuuti rek mooy xëy na maraza te maraza sax wootewul maanaam moom mooy muhammad mais fii Sénégal am na ko taxaw ne moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam ñëw ne mooy isa bnu mariam te fan lu ñu xamee fu yonent bi juree isa bnu mariam isa day bu ñu xamoon isa boo amul baay mais isa Sénégal am na baay kooku muy benn yuusuf maanaam yunus bii rahmatullahi alayhi yal na ko yàlla yërëm dem na ana ana ana ana ziyaare Yunus ana taarixi Yunus amu fi parce que li ko war mooy li waroon saxaaba yi rek loolu la def mooy jottili Abdulaahi ibnu Umar ndox mu wax mu ne ittabiu aathaarana fala tabtadiu laqad kufiitum topp leen suñu ay jeexintal liñ fi bay doy na leen yéen soxlu leen ngeen di sos lu fi yent bay ak saxaabi doy na leen kon ku fi ñëw bu waxee jàll dem dara du feeñ ci ginnaaw loolu bu yàlla yàlla defal ko qabul mooy waxam saa su ne ni gis muy dëppoo ak alquran ak sunna ñu di ci topp mu nekkal ko sadaqatul jaariya loolu mooy genre Ceerno Yunus bi xoola jamono boobu mu nekkee ci àdduna muy wax jox tawhid bu leer nañ ak sunna bu leer nañ bañ bidaa bañ bañ ba nga xam ne bakkanam la ci la ci teg bañ shirk bañ ba nga xam ne bakkanam la teg moom la garanti bakkanam la jaay bu leen bu ko neex ni faat ko nekk ku néew doole ku ñàkkoon silmaxa woon bu muy génn arun sax amul ay doom yu mag xal yu ndaw la amoon yaa may dëkk yunus yàlla nattu ko ci woote bu muy woote dëgg tawhid ku ci nekk daal nattu la mooy génnee nuñ ko dëkkam génne nuñ ko maanaam dëkkam génne ko senegal yàqee papiam nee moom Mauritanie yàlla beneen mbir sax lu gën yéeme sax pour wan la ni ñu fi mag ñu baax dëgg dëgg kenn xamu leen te bal di leen di saag yurus bi tey fii ci Fuuta bi ma dëkk nii am ñu xam diñ koy saaga dañuy ne kii ku bol la ku ñu rëbël boo gisee mu gumb dafa dagg course yaayam di ko fenal di moo tax moom mos na leen tontu leen waaw yéen xanaa gumb yëpp diñ dagg seen course yaay mu ne te maa ngi leen di xaar foofu de bu leen gumba de maa ngi xaar ba seen sëriñ kenn si ñoom gumb rek ku gumb kon boobaa danaa ne moom tamit dafa dagg course yaayam yaa ngi may dégg kenn euh, Yunus bi mu ngi ni sëriñam ko koy gën a yéeme sëriñam alaaj Mahmoud Ba aljawli moom Mauritanial Haalpulaar moom moo daawa kenn Yunus ak ñeneen ak ñeneen ay ci ay yu ngand ci ñu njëkk tàmbali fii sunna moom saudi la jànge saudi la jànge kooku bu mu ñëwee yàlla may ko xam-xam bu bu yéeme ak xikma daawa bu yéeme première école bu mu ubbi man ko ubbi fee ci xaay ñoon Yunus jàngee nañu maanaam ci école boobu noonu islam yi dëkk Yunus bi muqaddam tijaan la woon moom ak Dabax Malik ak euh, euh, euh, kii Thierno Mountaga Tall ak Mamour Dia ñoon ñeent lu ñu defandoo benn bëccëg muqaddam tijaan kon kii nekkul ku ndaw seen biir waaye bu mu xamee mbir bi sunna du tawhid daf ko jël teg ko fale toppali yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñooñ ñu baax waaw oser donte xat yi donte xoqatal donte lu neem ak seen kanam mais ni oser taxaw feeñal luy tawhid laa yaxaafuuna fillaahi lawmata law ñi ñooñ nit ñu baax yal na yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa taasub laa shirk ak jikko bu ñaaw barakallahu fiikum yal na yàlla sàmm yal na yàlla sàmm yal na yàlla rey si kitaaba sunna yal nañ day yéen sallallahu wa saxaaba yëpp si àjjana kër yonent yi ay salaatu wasalaam vraiment lii rek mooy dëgg doomu aadama na la dëgg ñor sooy defaan na nga defaan si kitaaba na sooy dee da nga dee si kitaaba sunna ku lay bañ na la bañ si kitaaba sunna ñun nit taxu ñaa jóg ndax nit nit kese la mën na koy changer moo tax yàlla digal yónni benn yonent boo xamante ne moom kese la yónni nga xam ne nekk maasuum yàlla watee biram wax noonu la lu juum nga xam ne si ko yàlla yónni kooku la ñu mais keneen ku dul moom léegi tam si ginnaawam bu tegee soo xam ne kitaab su ñu jël ko te saxaabi nekkoon ba ba gaa ba moo tax kenn sax sax mën roy roy ki dee ki nga xam dafa nekk dëgg ba dee moo royal kooku waaye boo roy ko na koy changé mais alhamdulilah yàlla may nañu roy kaay wax na ko si Quran laqad kaana fi rasulillah uswatun xasana liman kaana yarju llaaha wal yawmal Quran bàyyiwul dara ati wallah ati rasulillah wax wa in tutihu tahtadu wa ma ala rasul illa balaagul mubin boo ko toppee di ngeen jub yonent bi nekkul jotekaayu biir alhamdulilah ala kulli xaal yal na yàlla sàmm yu mel nii nag comme Yunus bi bu fekkoon tey noonu la paay meloon ke du leen daj Yunus bi bu fekkoon paay noonu la meloon xoolal vidéo yi mais xoolal tey yi ne xoolal seen seen wax jëlee seen vidéo yëpp nga seen vocal nga seen kii yëpp nga déglu ko ñoom sëriñ si su waxtaan yi lan la tagg Cheikh tagg Saad Fatia tagg seen maam yi jël taal si teg ko fa xamante ne teg ko ci kaw ñëpp loolu ngay dégg si ñoom cheikh cheikh cheikh cheikh saatu fatiya cheikh yi bu ñuy paree julli tàmm ko way di ko jàng na saxa sunna carrément am na yu bëri yu xamoon sunna yoo xamante ne yenn sunna yi sunni di ñoo tax xam ko yu bëri sax tamxarit waxoon na tamxarit ñu bu jàppoon dañ ko dañ ko na woor gaa yaakaar ne ay kii kese la te kenn xam ay fecc kenn xamul loolu gaa yaakaar dafa xarit sëriñ sëriñ fa la ko fekk wax musuñu ko tere ñu di nekk jigéen jigéen góor musuñu wax dara weeru sunna yi bëri musuñu bu dee benn seen fàttaliku kenn benn seen waxtaane weeru sunna yi weeru sunna yi ay jeudi vendredi jeudi ay lundi ay ñetti ñetti weer bi nga woos ñetti fan yi la quinze le treize la quatorze la quinze mosuñu mosuñu ko xam ba woor Arafat bi ñu bëri jàpp nañu ko doon woor ñu bëri xamu nañu ko doon woor loolu yëpp ëllëg suñu ñëw fa leer Sénégal foofu donte ba Sénégal tey même muuraay bi nga gis muuraay kool bi nga gis muuraay boobu Ibaadu Rahmaan ñu ko njëkk a def foofu Sénégal Ibaadu Rahmaan Ibaadu Rahmaan xam nga dañoo ko sunu mais sunu dafa desoon lu bëri dañoo ko sunu daana suuf yi wala desoon lu bëri sax ñu Ibaadu Rahmaan moom dañaa desoon lu bëri sunu wax dañaa dem ba na sax. folaga toppale muura bi a ñene ba ba ahlu sunna ñëw indi muura indi jilbaab Sénégal yiw fa nekk ak suuf ahlu sunna la jóge mais sëriñ bañ fa day nekk wala ñu fa dara saa ñu fa dara sol gu bam sol gu bam gi day gën di ñaaw gaar yi gën bañ fa nekk musuñu tere way way baa ba léegi musuñu tere ba sa way ka seen seen taabal lañ PMI PMI PMI ngi foofu PMI mosuñu ko tere loterie mosuñu ko tere banque yaa ngi foofu en pagaie banque riba yi banque xam ne def si riba ko tere mosoo dégg benn sëriñ di si wax ñii lan lan lan lan lañ liggéey Sénégal lan lañ fa def. tubaab bu ñu nee xeex tubaab bu ñu bi ba nu mu fa jógee moom foofu ndar fajar ba ban xew xeetu xeetu xeetu xeetu sa noonu sa noonu nga defal ko estati wala sax moom ma def estati teg ko fa nga dindoo ko. seen atte yi bëri mu ngi Sénégal sëñ Tuubaa fekk wala sëñ Tuubaa fekk doole sëñ fekk amoon doole kon nga atte yi allé vingt quinze pour quatre-vingt-quinze pour cent musulmans cinq pour cent cinq pour cent yi seen i seen i seen i atte yi atte comme sëriñ si nekk am am pagay Sénégal sëriñ njaboot si musu taxaw kenn suñu taxaw ba ne sharia kenn suñu musu taxaw ne at sharia ba tey moo dégg kenn suñu na mag sa at sharia doo ko dégg tamit te doo ko dégg tamit ñi lan la lan lañu liggéey diine ci lan la lañu ci liggéey diine ci lan lan lañu liggéey diine ci ñi ñi dañaa liggéey dara diine wala groupe bi ku fi jéem a jaare yow ay taalibe cheikh wala nga jaar nga ne yaay soldat cheikh sa soldat cheikh ba même boo nekkoon soldat di nga ba nekk gubi mus am garaat almalik moom amulul ay wax yoo wax yu ñaaw wax yu tegginu rek ngay wax mais loolu sunu moom macha allah dañaa nekk ñoo xamante ne yàlla dañaa dañaa yor si dañaa yor semp dañaa yor semp si kitaab sunna même boo ñu saaga kenn du la delloo saaga li ñu dafa dafa ne laana allahu man sabba waalidayhi saxaaba ne waa mu rëbb na ki saagaay waajuram saxaaba ne ko ñoo saaga seen mu ne ki saaga waajo jàmm kooku moo saaga waa moo saaga waajuram wala ñun lépp lu ñu wax si ay kàddu yu ñaaw même boo doon saaga lu ñu doon tontu mais li nga dégg di nga ko dégg dañ la delloo dañ la daaj suba ngoon ni nga dégg ñu daaj ci Cheikh dañ ko daaj suba ngoon Ahmed Tidiane dañu ko daaj bu baax a baax lépp moom la moom sànq say maam sànq suñu sànq ñëpp dañ ko daaj suba ngoon tey boo nga nii gaa di ko dëgëral koo xamante ne du Sénégal du dara Algérie nekk ko ñu dàq ma la Maroc amul njëriñ islam dara dara dara loolu di la foowee nga war a ñëw nga war a ñëw rapport sa dal ci kaw ngay dal si ñun